di mouvement ànd dooleel xalifa Sall bu département bu Tivaouane war a waxtaan ci point yi ñu mën a tuddee le mouvement ADK à Tivaouane la vie du mouvement ëllëgu parti socialiste situation politique nationale ak plus précisément ci département Tivaouane mooy li nga xam ne moo ñu dajale bu dee ci fànn bu njëkk bi lan moo tax ADK juddu ADK dañu wax nii c'est un réceptacle mouvement la boo xam ni population sénégalaise yi ñoom ñoo perdre espoir ñu gis benn sénégalais boo xam ni ñu tuddee ko le maire xalifa Sall de Dakar di liggéey depuis combien d'années di def ay résultats xoolul ci parti présidentiel la bokk xool ci parti opposition la bokk li ko ñor mooy ay résultats sénégalais de manière spontanée ñoom ñoo jóg jublu kooku nga xam ne mooy président Khalifa Sall. maintenant le cadre idéal bi nga xam ni moo war a mën a euh, euh, dalal ñooñu ñëpp seen ay déplacement mooy le mouvement mu looloo tax mouvement bi judd mouvement bi mu juddoo aussi dafa dem woo Khalifa Sall puisque fii li daan am bu njëkk dafa xaw a dafa am ab changement parce que bu njëkk c'est le le politique moo daan déplacé wu dem gisi population à la base di leen di ma convaincre mais li ñu constaté avec l'effet Khalifa Sall mooy c'est le contraire maanaam population yi à la base ñoom ñoo jóg organiser wu ni il faut ñu am quelqu'un koo xam ni véritablement dina mën a porter seen espoir yi ce quelqu'un là mu nekk la président Khalifa Sall kon loolu moo tax mu ma ànd DK ànd dooleel xalifa donc juddu ci Sénégal yëpp et plus précisément au niveau de de Tivaouane maintenant am na lu ko gën a mën a euh, layal ci département Tivaouane loo xam ne tey jii moo tax tout Tivaouane mobilisé wu. jëm ci mouvement boobu mooy la situation économique et sociale au niveau du département biñ ci gën a jël rek puisque bari na mais bi gën a bi gën a urgent mooy wàllu emploi ñu gis ni ndaw ñi fii département Tivaouane seeni jafe-jafe premier mooy emploi te ba léegi la gouvernement en place jëlagu solution mu am benn maanaam lu xel mënta nungu loo xam ne am na Tivaouane Tivaouane nekk département bi nga xam ni mun nañu wax ni usines yi gën a am doore ci Sénégal fii la implanté wu mën ci cité lu mel ni les industries chimiques du Sénégal mun naa ci citer lu mel ni euh, la grande côte opération ñu naan ko MDL nekk ci zone jogo nekk sociétés yi nga xam ay milliards et des milliards de chiffres d'affaires la ñuy def par at te ba léegi jeunes Tivaouane yi mënuñu gis seen bopp par rapport ak li nga xam ne mooy seen avenir mooy wàllu liggéey loolu aussi nekk na loo xam ni comme ils ont perdu espoir ci wàllu régime bi nekk en place ñoom ñu ni nañ dem intégrer le mouvement ADK puisque jàpp nañ ni leur leader bi nga xam ne moom lañ bëgg a porter au devant de la scène muy le président Khalifa Sall jàpp nañ ni moom mën na nekk une solution à ce problème là. toujours encore ci problème yooyu yi nga xam moo waral dëgg-dëgg mouvement bi taxaw imposé wu mooy ci wàllu jàngale wàllu jàngale bi ak jàng bi ñu jàpp ni Sénégal 2016 2015 2016 toute l' actualité en tout cas est dominée par ce problème là. te ba léegi la gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk jëlagul ay matukaay yu yu solide yoo xam ne tey jii ah jàpp nañ ni kat éducation stable na ci firnde rek bu ñu demee ci jàngalekat yi c'est un sentiment de désarroi moom mooy partagé parce que ba léegi malgré jafe-jafe yi mu doon bari bari lépp ba ñoom ñu nekk ay patriote toog jàpp seen jàmbur di xaar ba léegi seen dossier ñu ngi toog kenn mënu ko traité loolu également bokk na ci li nga xam ni tey jii au niveau national ñu nungu ko ñu bañ ko yàlla réseau des enseignants ADK boo xam ni mu ngi proliféré mi ngi également am une force boo xam ni aujourd'hui loolu rek moo ko mën a mën a justifier donc bu loolu weesoo ci maanaam li nga xam ne mooy avenir parti socialiste ku ne xam na ni le premier secteur général Ousmane Tanor bi nga xam ni moom moo jiite parti socialiste yoon wi nga xam ni moom la jël dafa wàcc raay yi ndax socialisme bi nga xam moom lañ xamoon bi ñuy Léopold Sédar Senghor bàyyil Abdou Diouf bàyyil ñu ko moom dafa wàcc raay yi à quel prix pour des raisons personnel wala ay ay intérêts yoo xam ni moom tey ji nga xam ni mook ñi ko wër. ñoo ngi ko jiital au détriment des intérêts et des valeurs du socialisme bi nga xam ne moom la ñu fi léegi looloo tax les socialistes originels ñi nga xam ne ñu ngi ci euh, en tout cas au niveau de Tivaouane ak ñi nga xam ni ñooy les sympathisants ñoom dañoo bëggal seen bopp xalifa Sall ñoom ñu ne loolu duñu ko nangu duñu bokk ci en tout cas coup d'état boobu mascarade boobu duñ ci bokk donc dañuy woo ki nga xam ne moom lañ jàpp ni moom mooy l'espoir mooy le sauveur moo mën a dimbali aujourd'hui le Sénégal ci position bi mu nekk nii muy le président Khalifa Sall ñoom ñu dem ni donc dañu ànd ak moom liggéey donc loolu ci li nga xam ne également moo tax mouvement bi taxaw tey jii loolu ci la ci la bokk di wane ni que euh, na seen xel dal ndax Ousmane Tanor Dieng aujourd'hui ak ay ñi nga xam ñooy ay complice am tey jii il représente plus à la base aujourd'hui Tivaouane gi ñu nekk. ku ne xam na ni parce que amatu fi parce que amatuñu mënatuñoo woote moo tax tey jii Tanor mënatul def lenn lu dul jafandu ci li nga xam ne moo fi des ku néew muy la Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bi nga xam tey jii mun nañ jàppe aw tur la rek boo xam ni dafa vide dara nekku ci biir ndax buñ ca jafandoo amaana donc dinañ am kon ne eh, eh, sauvegarder seen intérêt mais. ci biir moom mën nañ jàpp ne à la base ni benn Bokk Yaakaar moom on défie quiconque amatul en tout cas au niveau euh, de la de la base. di wax aussi sur la situation politique nationale li xew ku ne xam na ko mooy une justice à double vitesse mooy justice boo xam ni ku ànd ak buur la nga bëgg mu defal la ko ku àndul ak buur donc mu rax sa ndigg loolu lañ ñemeeku. moo tax ki nga xam ni le président Khalifa Sall nekk kuy déranger ci jamono ji ñu toll ndax wax naa ko ci gannaaw ñi nga xam ni ñoom la àndal di liggéey ñu di leen harceler di leen noot te loolu également jàpp nañu ni au niveau de ànd dooleel xalifa sénégalais yi duñu ko nangu te dina leen jaral lu ne ndax régime bi bi ñu ko fiy installé avec le benn Bokk Yaakaar dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne sénégalais moom la doon dund ci wàllu absence de démocratie yemale sénégalais yi ñu bokk réew mi lépp ñu partagé ko loolee dafay jóg da ngay ànd ci mouvance présidentielle li nga bëgg ñu la koy defal àndoo ci mouvance présidentielle donc ñu rax sa ndigg je crois que loolu aujourd'hui moom la Bamba Fall di dund Birakan Ndiaye ak ñoom ñi ànd ak ñoom ñépp ñu leen di harceler di leen tëj te teguñu ko fenn pour preuve bi nga xamee ni ñi ngi jàpp social yooyu di leen tëj au même moment gis nañ suñu mbokki APR yi daje fi ay réunion xeex xulo gaañante mais ba léegi nii gisuñu benn justice daal ci prononcé wu kon loolu firnde la pour wane ni euh, parti présidentiel lenn rek ko yitteel mooy faagaagal ki nga xam ni mooy les socialistes yi nga xam duñu musa a nangu ñuy jaay seen ngor ñuy jaay seen réew au nom des intérêts partisans kon pour ma jeexal damay wax rek woowaat Tiwaawan gépp ñu gën a takku ñi bokk parti socialiste ak ñi nga xam ni ay xaritu ay ñoom xalifa mooy seen moom dañ ko bëggal seen bopp ñu nekk benn suudewu xam ni xalifa Sall moom lu leer la wax li mu wax mooy lan ak lu mën di am parti socialiste dina am un candidat parti socialiste dina dem élection législative 2017 kon ñu gën a suudewu ànd liggéey bu ñu àndee suudewoo dinañ gañe loolu mooy li nga xam ni moom laa amoon lu may wax ci ndaje mi nga xam ne moo ñu boole tey bon li ma jàpp ni tey jii bu ko defoon euh, parce que dafa am loo xam nit ñi dañ koy jaawale y a ce qu'on une légitimité entre la légalité et la légitimité il faut que nit ñi xaw ko mën a càmbar légalité mooy institutionnellement Tanor dañ ko fi teg mais légitimement il n'est plus légitime tey jii bu nu ngi woon jël woote waxtaan d'abord parce que ba léegi quand le maire dit que ñun Parti social la ñu bokk du ñu fi jóge fi la ñu nekk nañu woote waxtaan bu ñu waxtaan waxtaanoon tey jii xam ni kii kat moom la Sénégalais yi bëggal seen bopp te moom c'est quelqu'un koo xam ni day fay def ay résultat te bu ñuy delloo ci ginnaaw mooy Sénégalais bi bokk ñu jëkk a jóg def déclaration de patrimoine booba en tout cas c'était pas institutionnalisé institutionnalisé maanaam yoonu Sénégal tegu ko woon mu doon loo xam ne obligatoirement da nga koy def. Khalifa Sall def na ko kon Tanor tey jii li waroon am mooy mu woo sénégalais woo waa parti socialiste waxtaan ak ñoom ñu jàpp ni Khalifa Sall c'est le mieux indiqué mu jox ko li nga xam ne mooy parti bi pour problème yooyu mun a jeex. waaw xam nga foofu euh, dañu ni li naan ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura. tey jii Serigne Mbaye Thiam ni ma ko xabe bu fekkoon rek dafa jóg pour en tout cas solutionner euh, problème mu éducation Sénégal je crois que dépassé nañ foofu mais moom il est manipulé il fait partie d'un groupe boo xam ni aujourd'hui jàng bi ak jàngale bi desee na leen a yitteel moo tax boo gisee ñuy def ay valse di dugg de gauche à droite mais pour régler la problème de l'éducation c'est comme bonjour ay jàngalekat yoo xam dañoo war a avancer avancer wuñu dañu war a traité seen dossier traité wuñ ko mais loolu lu fi jafe amul donc jàpp naa ni loolu rek mooy le le problème qui bloque. peut-être euh, département Tivaouane euh, euh, la paternité de bon mouvement ànd dooleel Khalifa bu ngeen déggee sama wax dama ni du mouvement boo xam ne socialiste yi ñoo ko moom c'est-à-dire mouvement boo xam ni y a les socialistes d'accord. mais y a les sympathisants am na également ñoo xam ne Sénégal rek moo leen ñor ñu ni kat mouvement bii kat jàpp nañu c'est un bon élément boo xam ne war na leen mën a eggale fi nga xam ne foofu la Sénégal des meilleurs moo tax ñu ñëw intégré ko mais dans notre champ d'action vous voyez que aujourd'hui le Manko Wattu Sénégal est représenté par notre camarade Doudou Guèye Ndiaye te seen responsable bi muy euh, comment dire encore jaana na fi suba Momar Maodo jaar na fa ci suba pour wan leen ni leen rek danañ travailler en synergie au niveau du département avec toutes ces forces là yi nga xam ni ñoom dañuy bañ injustice sénégalu ëllëg ñor na leen ñu ànd donc mener le travail ensemble. bon je crois que à ce niveau là peut-être xam naa le le le président Khalifa Sall sera la personne la mieux indiquée en tout cas pour. pour répondre à cette question. Mais en tout cas, à notre niveau, ce qui nous intéresse, c'est un travail de massification à la base. Et je crois que nous y sommes à, à, à plein temps.